عليك صلاة الله ثم السلام فبرهام جد عاشق فيك واميق mais aussi à l'intérieur de l'agglomération de Taïba-Niassène et dans toute l'étendue de la commune de Taïba-Niassène. Des dispositions pratiques de façon engagée, aussi bien du point de vue ressources humaines, des éléments la gendarmerie, de la police, mais également des dispositions d'ordre logistique Au-delà de l'aspect sécurité, nous avons abordé aussi l'aspect naturellement, l'aspect sanitaire. Je crois que euh, demain, la région médicale prendra toutes les dispositions pour commencer cette campagne de sensibilisation par le biais des affichages, par le biais donc des à délivrer aux pèlerins pour que vraiment tout le monde puisse faire le maximum possible pour éviter tout ce propagation de quelconque maladie, en particulier à l'heure où médicaments aussi sont mis à disposition, ainsi que les postes médicaux avancés. Voilà, des dispositions ont été prises depuis. Ça ne date Au niveau donc des frontières, on a mis en place un dispositif médical permanent, au niveau de, euh, de chargé en relation avec la police des frontières loolu nag su amee ci ci ci période bii nga xam ne nii ñuy wax ay feebar yu am ci àddina bi yëpp te mu law ci àddina bi je crois dafay laaj fagaru moo tax ba sànq ñu ubbi ñu wax ci euh, lu mel noonu léegi bu loolu weesoo nag ah, euh, gàmmu gi dañ koy préparé comme ni ñu doon préparé yeneen édition yi dinañ fexe ba euh, kaaraange doy dispositif bi nga xam ne def nañ ko poroxaan dispositif boobu bu fa jógee directement des piquets sur sur Taïba donc ñu boucler axe yi yoon yi biir Taïba Niassène kër xalif général bi yëpp ñu boucler ko vraiment pour kaaraange gi nit ñi mën a dem mën a ñëw ci jàmm ak su loolu weesoo aussi abordé nañ wàllu euh, wér-gu-yaram wàllu wér-gu-yaram comme ni ñu ko waxee euh, am na campagne sensibilisation bu ñu def contre les maladies plus particulièrement le coronavirus mais aussi euh, am na yeneen dispositif yu ñu jël maanaam ay postes médicaux avancé doté le comité d'organisation donc de médicaments indi ay ambulance set ak setal ñoo ànd alayka salaatullahi thumma salaamu fa barhaamu jiddun aashiqun fika